ci sant di ko gërëm di leen ñaanal bu baax a baax di ñaan yàlla nañ dugg ci liggéey bi ci bisimilah rahmaani rahim ah jeexal ko ak alhamdulilah rabbil alamin xam nga bu fekkee ne collecteur bi ket dafa ñëw taxaw ak nit ki di ko fay du ko considéré du ko respecté dina tax bu ànd ak agent bi bu ñëwee dana tax ñu considéré ko waaye aussi dana yor dana sécuriser agent bi nga xam ne mi ngi yor as tuuti di wër. su ànd moom danañ ko bàyyi xel ba dana am sécuri dana sécuriser ensemble bi waaye dana sécuriser xaalis bi loolu mooy solo si nga xam ne moo tax ñuy def convention bi. suñu teewaay fii encore une fois ñun waa ASP mun naa ne ñaar ndax dañu nekk fépp ci Sénégal fépp ci réew mi à travers suñu unité départementale ñu nekk Mbacké Touba Mbacké euh, suñu limu ASP yi foofu tolloon ci ñaar téeméer ci ndorteel bi bien que am na ci wàññeeku ci diggante bi. fay mi sama yoon mooy kilifa gi mooy chef unité départemental bi ñu sosee ASP 2013 président xalaat ko ñaari mbir waraloon ko jàpp ci kaaraange réew mi dimbale way takk der yi waaye itam jox ay ndaw réew mi ci lu ñu jàpp ba bu da bokk ci tabax réew mi muy 2013 à travers le décret 1063 bu 5 août 2013 mi ngi juddoo Abdou Lahad Ka mi maire euh, Touba dafa sàkk woon ci Pape Xaalim mi nga xam ne man maa ko remplacé muy suñu mag sañ ci kër gi mu jàppale ko ci liggéey bi ñu ko dënk fii ci dëkk bu sell bi muy Touba ci lañ ko ASP jox juróom fukki agent mu tas leen ni tas bu am solo bu rafet biir Touba maire bi jël ci lim ci soxla këru Serigne Touba yëpp am ci ba ci résidence Xaadim Rasul bi ñu nekk jumaa ji am ci armeer yi Baqiya am ci ah daaray kaamil am ci këru kilifa yu diine yu bari aussi am ci lu mel ni këru porte parole donc loolu sax la lu fi nekk la ba ASP juddoo ba tey dox suñu diggante ak mairie Touba bu loolu yëpp weesoo màggal bi bu amee liggéey bi day bari ay millions ngi doomi aadama di fi daje di jaar si sëriñ ci lañ waxtaanaat man ak moom pour ñu jàppalewaat ko ci liggéey bi ñu def ko at yi weesu ñu gis ci ndam. ren itam ñu ne ah comme gisoon nañ ci ndam dañuy fexe ah, saxalaat liggéey boobu ngir am ci ndam lu ëpp en tout cas liñ ci séntu moom moo tax ñu teew fi tey pour xaatim benn kayitu déggoo boo xam ne dañuy jëlaat juróomi ay juróom fukki teg ko ci ay loxoom ngir avant ak màggal ak après màggal lu toll ci fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan yoo xam ne dañu koy dimbale ci collecte impôt yi en tout cas taxes yi jëm ci véhicule hippomobile yi mooy fas yeeg mbaam yi daaw am ak at yi am na liggéey bu am solo muñ ci amal ren itam am na liggéey bu mucc ay buñ ci bëgg a amal loolu moo taxoon ñu teew fi tey ngir xaatim kayiti déggoo boobu boo xam ne suñu partenaire bu yàgg la suñu partenaire bu ñu jox cër la pour jàppale ko encore une fois ci liggéey boobu moom it moo amaat xalaat bu rafet ba avant ñuy xaatim ñu def lu toll ci waxtu wala lu ko ëpp man ak moom ak suñu collaborateur bu woo directeur de cabinet téléphone sama secteur général toog ñu waxtaan waxtaan bu am solo ñu ne c'est vrai que am na juróom fukki ASP yu ñu ko joxoon jëfandikoo jëfandikoo na na leen ni mu leen war a jëfandikoo Touba gépp gis ci seen bopp muy espace public yeeg këru yeeg gépp liggéey bi nga xam aussi ñu ngi koy amal ak moom ci màggal bi gis na njariñ li moom mu ne comme tuubaa dafa bëri ay xew bëri ay commerce dafa bëgg encore ñu jàppalewaat ko ci loolu ñun itam ñu ne ko ñun looloo ñu fi tàj ay ndaw lañ président moo ñu sañ ñu sos ñu te liggéeyal askan bi rek moo ñu tax a jóg ndax ay volontaire lañ dañu jël suñu jëmm daf ko àddiyee askan bi donc ci loolu lañ juboo tey muy gannaaw màggal gi fas yéene nañu amal benn déggoo boo xam ne day daw ci at bi yëpp ba lépp lu mu soxla ci dëkk bi ñu jàppale ko te yàlla rek tax ak sëriñ Tuubaa xam-xam ak njàng moom du doy diine yëpp ko digle du doy voilà donc moo tax tàggat nañ leen gaa ndax bu ñu leen di recruter dañuy xool ndax amuñ ay jafe-jafe ak yoon dañuy xool itam ndax seen jaar-jaar en tout cas mucc na ay xool itam vraiment ndax euh, euh, remplir nañ critères yooyu yëpp booleen aussi ak métier boo xam ne dañ leen ciy tàggat seen giiru engagement pour bu ñu fi jógee ñu mun a wéy ak seen i mbaggi bopp. ah def appel à candidature boo xam ne ñëpp koy gisandoo doomi Sénégal yëpp bokk ci yëpp ñoom fukki junniy ndaw ñooñu nga xam dañu gëm wooteeb njiitu réew mi jël seet jëmu def ko àddi askan wi ah ñu ci bari am nañ formation avant ñu ñëw ci ñun mun nañ ne quatre euh, euh, euh, juróom ñett fukki am nañu formation avant ñuy ñëw xaaj gi ci fukk junne yi jaar nañ service militaire terewul aussi bu yegsee ci ñun dañ leen di tàggat ci lu toll ci ñeent fukki fan ak juróom tàggat bu am solo bu mu cay parce que direction bi koy def ay officiers ñoo ko jiite ba mu sosoo ak léegi muy police gendarmerie wala armée nationale bu loolu weesoo aussi muy ñaari niveau de formation kër yi nga xam dañu am déggoo ak ñoom yëpp dañ leen di imposer maanaam dañ leen di sas. ñu tàggalaat leen ñu tàggat leen encore ci métier yi nga xam ne dañ leen ciy jëfandikoo te du tere aussi dañuy amal benn euh, évaluation benn xayma bu régulière boo xam ne dañ koy def ak ñi nga xam ñëpp dañu bokk ak ñoom liggéey parce que ASP benn mission bi ñëpp gën a xam moom mooy ñu fo ñu recruter ñu former ñu jox police ak gendarmerie ak yeneen administration yi ba ci kër yi di pour jàppale leen seen liggéey donc terewul nag formation. dañ ko gëm parce que dafa bokk ci gis-gisu njiitu mu mi ci plan Sénégal émergent ñaari pàcc bi gannaaw pàcc bu njëkk bi bu mu waxee ci wàllu koom-koom bu ci topp dafa war a wax dafa wax ci wàllu développement du capital humain donc formation bi dafa am solo ci ñun ndax ay ndaw la ñu dënk te ci wàllu emploi des jeunes la ñu yëngu donc tàggat gi moom suba ngoon bu dégg ba ci ki lañ nekk.